salaamaaleykum mbokku téléspectateur Diassigui TV ñu ngi leen di jaajëfal amati mbégte ak kontante ñëw tey jàkkaarloog ñaar ñi nga xamante ni wax dëgg yàlla sëñ Modou kenn du ko présenté si àdduna bi mu nekk benn sëñ bi nga xamante ni wax dëgg yàlla réseaux sociaux yi ah, foo tappe ñu génnee la ko wax dëgg yàlla nit ñi tamit di ko seetal si liggéey bi nga xam ne mu ngi koy def muy wàllu médecine traditionnelle mu si def li nga xamante ni lu mucc ayib ki nga xamante ni moom la dendal muy Zal ñu koy wax Zal serpent wax dëgg yàlla ah, Afrique Sénégal adduna bi amul fu mu demut foo xamante nii wax dëgg yàlla bon wane na fa li nga xamante ni moom la mëne li ngeen gis ni ci baat bi moom mooy manam jaan bi nga xamanteni mom amna ay yef yo xamanteni war na ci si def wax deug yalla mais ci kanam tuuti di ngeen ko xam mais bala ñuy tambalé émission bi ni dafa nek émission bi nga xamanteni chaque semaine dinañ koy faral di joxé ñi nga xamanteni ni manam mooy maanaam mbokk internet pour aduna bi yëpp di ci jëriñu njëriñ kessa la ndax amna lo xamanteni wax deug yalla day am si gantax ci am si aduna am si euh, ci biir all bi am si biti am si biir am fepp fo xamanteni ni nit ñi ñu ngi fay dund di dox ñaar ñi ni fas yéene wax dëgg yàlla jàppalanteeg askan bi jàppalanteeg internet yi jàppalanteeg nit yi nga xamante ni wax dëgg yàlla ñu ngi fi nekk ñi nga xamante ni am loo xam ne dañ koy bëgg xam waaye duñ ci mën a egg ñaar tey jii dañoo fas yéene si émission bii nii ah, ñu jàppalanteeg nit yooyu noonu. tey bala may tàmbalee li nga xamante moom may maanaam waxtaan si ñaar ñii nii muy Zal Serpent ak Serigne Modou Ladiane dama leen bàyyi ñu nuyoo dalal leen ba pare bu ko defee ñu dugg si waxtaan bi tey nag mooy mooy lancement wu ah, li nga xamante moom mooy maanaam émission bi Zal lan ngay dugg waaw xanaa di nuyu àdduna di nuyu euh, mbokk diaspora di nuyu ñëpp di nuyu euh, caméra sama caméraman di nuyu euh, sëñ. Modou Ladiane waaw di la nuyu tamit di nuyu ah. waa Diadji TV ñëpp. di nuyu ñëpp daal ah àdduna ñëpp di wax ni tamit dal jàmm rek ak yi TV di wax ni képp ku affaire jaan soxal wala képp ku am soxla si jaan wala. képp lépp lu nekk si àll bi rek incha allah lépp lu nekk si àll bi rek day jaaxal nit ñi loo xam ne da lay jaaxal jaaxal nit ñi muy guddi muy bëccëg incha allah rabbi seetaanal Diassigui TV di nga am lu leer incha allah rabbi jërëjëf loolu man moom xam naa si lu leer ndax Diassigui TV ñëwoon nañ fa dafa benn vidéo nga génne fa jaani am na lu fa def mais xam naa gars yi bu ñu seetaanee TV nañ ko def nañ tapé sal serpent rek waaw donc sëñ Modou yow euh, ban taxawaay nga am si li mooy maanaam par rapport gannaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent yàlla Muhammad ñu ngi sant mboolem wàllu yàlla yi waaye ñu ngi sant mboolem ñi nga xam ne ñoo safoo télévision télévision bu mag bii waaye mboolem ñi nga xam ne rek ñooy bàyyi xel euh, télévision bu mag bii nga xam ne lépp loo xam ne ci wàllu xam-xam la lépp loo xam ne wàllu cosaan la lépp loo xam ne luy aar doomu aadama la wala lépp loo xam ne luy lor doomu aadama la fii lañ koy leeralee ci émission bu mag bii nga xam ne ñu ngi ciy jàkkaarloog suñu nawle ñu ngi ciy jàkkaarloog suñu xarit waaye ñu ngi ciy jàkkaarloog suñu doomu ndey mi ki nga xam ne moo di Sall Serpent wax dëgg yàlla damay wax ne wax sa mbaaxuwaay yàqul dara sa mbaax. dëgg muy kër goo xam ne mu dëkk ci kër goo xam ne kër cosaan la. Mhm. dëkk ci kër goo xam ne kër xam-xam la. ngir damay wax ne nga dugg ci kër goo xam ne. Mhm. lu mel ni ceeli nga ñëw fekk ko ci kër gi. fekk fa lu mel ni tànn. fekk fa lu mel ni golo. ak yeneen xeet yi nga xam ne ay yeew wax dëgg yàlla nit yar ko nit man ko not ba nga xam ne fu ko nit jëm la mu jëm fa. dafay firndeel ne mooy sama wax ji nga xam ne doon naa ko wax rek giri dama wax ne lépp lu yàlla bind rek nota la ko nota la na ko doomu aadama bi maanaam doomu bi ci góorgóorloom ci lay noté bépp mbindeef moo tax émission bi ñu indi ko man ak Saal incha képp koo xam ne bëgg naa xam. lan mooy njariñu jaan. Uh-huh. képp gën koo xam ne bëgg naa xam lan mooy la jaan di lore doomu aadama. Mm-hmm. képp koo xam ne jaan mat na ko ci sens bi mu bëgg cee am lan mooy saafara. Mm-hmm. la tànk liggéeykat bi di ñëw. waaye képp koo xam ne jaan sonal na ko ak fu mu mën a nekk incha allah. danañ tàppee numéro Saal incha allahu. Mm-hmm. mu man koo jot. waaye ñu mën a fexe ba moom mu am ci ay saafara ci saasi la tànk Sall di ñëw di indi solution incha allah bu neexee yàlla loolu moo tax ñu taxawal émission bi na solo euh, euh, ki nga xamante ne bëgg na jot Zal Serpent numéro yi ne bëgg na jot Serigne Modou Ladiane numéro yi dina affiché a waxtaan ak a mhm. mu war a nekk li nga xamante ni euh, public la mhm. ngeen war ko baaxee ñi nga xamante mooy maanaam adduna

léegi moo tax ñu def émission bi bala ngay euh, boo seetaanee Dias TV rek yow sa lépp dina lee di nga xam yow nan nga war a euh, collecter jaan bi xam ne jaan bi du am benn problème. Mhm. ni ñu woo ñu ñëw jël ko benn du am benn problème wala jaan maatee mhm. dañ ko dindi. wala di nga ut ay pexe san ñu ñuy ñëw ba avant ñun ñuy ñëw. parce que lépp laabirante parce que mhm. Sénégal foofu nañ toll léegi. du du question que da ngay eh, ut xaalis pour euh, def lenn loo xam ne tey day day nekk. problème maanaam defoo leen si business. non non maanaam da ngeen si ñëw pour jàppalante ak doomu aadama parce que adduna foofu nañ toll jàppalante parce que jaan tey lu bari da ci da ci nekk kii tey euh, dafa dafa xaw a raar dëgg dafa xaw a raar parce que am na tey ñu bari ba heureusement fu nekk man ni ñu dañ may wooye si émission bu mel nii pour ñu pour ma taxawal ko lii nag yàlla moo ko moo moo ko def mais li dafa raar même tey bu nekkul rek li muy génn pour nga ti nga téye ko rek ah di di ci def say démonstration rek say ay affaire rek. dafa say démonstration day yéeme. dafa yéeme nit ñi xamuñu na nga si nga si nga si wan ni ñi. njariñ day njariñ. Mhm. parce que dafa am njariñ yu garaaw lu si nekk. Mhm. ku ko bëgg a xam njariñ yi si nekk ñëpp. Mhm. lu si nekk lépp muy euh, euh, jaan bi muy. Euh, yeew uh-huh. muy saamaan. muy cox. muy ceebi lépp. xeetu rab yëpp rabu àll yëpp loo ci loo loo bëgg a. lu la si jaaxal rek incha allah seetaanal Diassi TV. jërëjëf allah ba ngeen bëgg a laabiir ñi xamante ne ñoom ñoom maanaam mbokk internet di a baax gëri xam nga man xam-xam yonente yàlla Muhammad dafa wax na jar na soldaali wañ dox fii ba siin te wax dëgg yàlla lépp lu nit mën a am ak lu mu mën a doon rek xam-xam moo ko may. dëgg kon jaam yàlla bi la mu war a njëkk def mooy fexe ba am xam-xam. waaye fexe ba xam-xam bu mu am mu jëriñu ci waaye mu jëriñ ci mbindeef yi loolu moo waral ñu teg émission bi incha allahu ngir dimbalanteeg jaam yàlla yi ci wàllu xam-xam ngir dimbalanteeg jaam yàlla yi naka la ñuy mën a aaree seen bopp gis nga nit bala ngay tal dara dafa fekk nga mucc. bala ngay tal dara dafa fekk nga war a am kaaraange loolu moo waral tey incha allahu ki ban kaaraange la war a am moo xam ci alxuraan la moo xam ci sunguf la moo xam ci ren la moo xam ci xob la moo xam ci xas la incha allahu loolu la ñu ñëw ngeen jaan nag dafa nekk loo xam ne lu doy waar la te it wax dëgg yàlla comme ni ko Sall waxee mu nekk mbir moo xam ne bëri na lool ci dëkk bi te nag jaam yàlla bu nekk rek même budul yow am nga sa njaboot naka ngay def ba mën a aar sa njaboot naka ngay def ba mën a aar sa bopp incha allahu loolu lañ bëgg laabirinte ak jaam yàlla ci biir émission bi incha allah nag émission bi xam-xam rek lay doon man ak Sall danañ waxtaan ci wàllu xam-xam danañ waxtaan ci wàllu faj dañu waxtaan ci wàllu kaaraange danañ waxtaan ci wàllu ubbe gis nga jaan ni muy ni ni nga xamee ne moom la nikki di ragalee mu lor ko waaye nun la mën a yëkkatee doomu aadama bi ah. waaye nun la mën a fajee doomu aadama bi ah. waaye nun la mën a teralee doomu aadama bi waaye ci doomu aadama bi mën a amee koom-koom kon mbir yëpp rek maanaam baax na doon yàlla bi mu góorgóorlu gëstu ba xam ko incha allah ci kaw xam-xam bu mu koy xam mhm. ci la mën a jëriñu incha allah bu neexee yàlla jërëjëf jal serpent jëlal serpent jëlal devant serpent <laughs> jal serpent <laughs> jëlal euh, micro bi sëñ bi wax na lu am solo parce que nee na jaan nu mu mën loraatee noonu la mën a euh, fajee mhm. euh, jaan bii nii muy yeew ñu bëri dañ naan du matte mhm. du matte du defee dara maanaam mën nga ko téye mun nga ko def lu mën a neexee est que loolu noonu lu li ngay dëggal la wala waaw parce que jaan kii nit mën na see fay ba xëy wuyu ji boroomam mën na see faj xëy wuyu ji boroomam. Hmm? parce que li ci nekk moo doy waar. chaque jour mën ngaa mën naa cee génne lu bees. chaque jour chaque jour. macha allah mën naa si génne lu bees kii. nit mën na see boo ko xamee maîtriser ko nit mën see faj ba xëy wuyu ji boroomam asamaak nag yeleen yi. tey dafa am ñeent yoo xam ne rek dama koy joxe nii rek. tey kii tey gereesam. Mhm. am na ñu bari ñoo gis ñuy massage moom la ñuy massager. Hmm? gereesam. ñu bari massage moom na ñuy massage moom na ñuy massage moom la ñuy massé euh, tey nga ñëw si der bi der bi ki tey amul sax jëru sax ma koy wax uude yeeg yooyu parce que man der bi rek tey ñu bari dan ma koy dan ma koy ñëw di aussi pour ma jaay mais dama koy maye gratuit parce que yenn saa damay deel ay jaan yoo xam ne man ay 6 mètres 7 mètres pa mu habitude man rey jaan xanaa ñu am accident rek dëgg la dëgg moo tax yi si nekk dafa dafa dafa bari ah léegi day matteem du matte kii tey comme ni ngay yare sa pitbull rek waaw mu di ko dressé noonu nga koy dressé kii ah, kon lii dañ koy dressé waaw bu la neexee nga mu lay miin ba miin du matte du def dara ah. bu la neexee tamit nga def ko ba nga xam ni tey man mi ko téye du ma maat mais yow mi nga xam ne yaa may attaqué da lay maat ah. waaw comme xaj rek comme xaj rek pitbull yi ni ñu leen yare ay ñëw ci man même na la la mën a miinee noonu parce que xet xet gis nga tey ni muy flotté di génne làmmiñam nii noonu la moom moo xaj ñoo yor dañuy flotté bu nuy dox. Ah. léegi nag moom moo waral tey muy miin tey mën naa koo lonko yow man duma ma màtt mais yow mi nga xam ni yaa may jub si yow lay màtt. Ah léegi nag moo tax man bu may dem yenn saa spectacle ah. du may jël yi nga xam ni dañuy maate damay jël yi nga xam ni du màtte léegi nag moo waral gars yi naan dafa dindi bëñ yi kon day am màtte am yu dul màtte kon bii bala si bokk léegi nag bii man maa ko def ba xam ni tey du màtte def du màtte du def dara mais tey suma ma bëggoon mu màtte moo ko tegee am na nu may composé ak moom day songe da lay màtt. Ah, léegi nag ñaar dafa am. Uh-huh. yi nga xam ni tey teg nga ko mu màtt bokkul ak bi bi bi dul màtte mais léegi ñaar yooyu tey mënoonoo composé ka si néeg bi. parce que jaan ak jaan bii yeew ak yeew mooy piton. Uh-huh. Euh, France waaw waaw moom la wax moo koy wax piton. Uh-huh. duñ màtte ñoom ñaar duñ defante dara seen biir mais booleen leen boolee beleen raas dañuy xeex. Ah, dañuy xeex mais mais lan na ne waaw kay léegi nag kii tey woo ko tegee nii. Mhm. tey woo tegee nii. jëlal <laughs> jëlal lii jëlal jël ko. li nga tey boo ko tegee. seetaan leen gaay seetaan leen. Zal Serpent instant dafa bëgg euh, yëngal li nga xamante mooy yeew bi. tey mu ngi mel ni xaj rek. Uh-huh. mu ngi mel ni xaj. Uh-huh. ngay ki foog moom gis nga. gis nga bu yàggee rek day uh-huh. mer. day mer. bu yàggee rek day mer. si gis mu lay xool. waaw bu yàggee rek. gis mu ngi yëngal mu ngi yëngal bopp bi. nga gis mu ngi yëkkati na bopp bi. waaw parce que lii signe la lii bu ko defee mu ngi attaqué. yëkkati na bopp bi waaw lii mu ngi attaqué. gis léegi loo ko def bu mu yëkkati bopp nga. parce que da geen gi. ah li nga yëkkati sànq geen damaa màtt fële. gis nga xaaraatal la. gis nga xoola mu ngi yëkkati de mu ngi ñëw. day song bu defee nii rek même xaj bala muy ma bala muy matt day song day song day ñëw day arrière xar bala moo mbëkkee day arrière dëgg xool ko mu ngi ñëw mu ngi ñëw boo def nii rek gis nga parce que kii li tax mu naqaree kii ni uh-huh. mu koy dressé ba xam du mat ah ok bii daf la miin daf la miin moo tax xamul loolu moo tax boo ko defee lu metti sax ok du day calme day calme mais nag boo yàggee di matt geen gi di matt bu yàggee day risqué. lu mu la miin miin day ñëw miin miin day risqué. jaajëf mais nag bii da nga koo def. Mhm. ba du matt du def dara moo tax. Mhm. mu ngi mais mu ngi yëkkati bopp bi gis nga. gis nga mu ngi yëkkati bopp ngi génnee làmmiñ bi tamit. waaw ah, xaar day ñëw. sama gars yi soo ko mënee zoom noonu mu ngi génnee làmmiñ gis nga làmmiñ mu ngi koy génnee par ndànk par ndànk. dégg affaire bu garaaw ah. parce lii maa ngi ko soog a gis. day xool ba xam kii. moom la kii kii boromam la. boromam la wala du boromam. waaw cey àdduna xam-xam rek a wóor. <laughs> day xool da xam boromam la wala déet. si xam-xam rek a wóor. léegi bu yàggee rek. day attaqué parce que day xam ni kii. boromam du ko def nii. d'accord bu yàggee rek day attaqué. gis naa ko mu ngi nii di génne làmmiñ bi te mu ngi dëngal affaire bi te mu ngi boppam bi mu ngi jàkkaarloog yow. instant bi mu ngi lay xool. instant bu yàggee gi nga tey bu attaqué woon sama kaw sama kaw la jëm. sama day ñëw rek attaqué la direct. sama kanam la jëm direct. si comme jànn mi attaqué rek. at géem tey bu ni woon nii. boo ni woon nii. ah. la ilaha illallah noonu lay màtte parce que résister na ba sonn mais da ngaa gis nga résister ba sonn kaay zoomal gis nga. xool ko sama waa xool ko. gis nga léegi deret bee nekk nii parce que saabu veut dire que na. la gis nga parce que résister na ba sonn. mais mataat na la ñëwaat na songaat na la kii du man kii du du du borom. songaat na la nii songaat na la parce que gis nga. songaat na la. gis nga te gisoo ko gis gars yi jël ko amul amul amul donc li ñu mën a wax li ma mën a wax fii nii mooy que ni ñi nga xamante ni ñu ngi wax jaan euh, du matte mm. donc preuve baa ngi nii fii lay amee si Diassigui TV gis nga leer na naañ donc man musuma ko woon xalaat musuma ko woon xam donc tey laa gis ni ni ndekete li ñuy wax dëgg la jaan day matte mu ngi nii man waxuma ko mais jaan bee ko wane zaal moo ko wane zaal moom moo attaqué affaire bi gis nga nii léegi nag euh, problème bi mooy bu laa defee nii yeew bi da nga naan dafa am dangaar dafa am dangaar mais amul dangaar après boo dindee nii boo jëlee alcool wala dara nettoyé jeex na. du def dara du def dara mën nga dem sa yoon. mais dama naan dégg ñu ne jaan bu la màttee affaire bi day yéeg. non non non bii bokkul ak yooyu. bii nag commencement bi nii day saf instant nii day saf. day saf saf saf ba nga naan dangar la war a dara. mais ay deux minutes au maximum mu deñ. saf saf bi day taxawal ni teeku tee ma ma dugg sëñ Modou <laughs> laa jaan jaajëf. yaa ilaha illallah donc mbokk internet yi yéen a ko gisandoo. ñoo ko gisandoo ñun ñëpp nekk na affaire bi nga xamante ni li ñu naan werante xuuxaan tekki tubay mhm. tey moom tekk nañ tubay bi fii si Diassigui TV mhm. donc sëñ Modou Ladiane yéen ñi euh, mhm. la ko mais ñu bëri gëmuñ ko woon naan jaan da lay laxasu nekk si si médecine traditionnelle bi bu la màttee am ngeen ay garab yi nga xam ne ay fas yi nga xamante da ngeen koy defal nit ba nga xamante euh, jaan sax du la xool du la ñemee xool ak yooyu noonu lan nga si wax Euh, lu ci nekk rek maanaam mooy li ma wax léegi fexeel ba xam ko nga dog cee dugg. maanaam ñun ñun. man maa ngi jëlee ci sama maam daana def loo xam ne. maanaam mi ngi ko daan def guddi tamxarit maanaam bu ñu tele tamxarit ci ngoon gi lañ koy bind. suñu ko bindee bind ko ci sa tànk bi maanaam ci tànk lañ ko bind te bind bi ñu fi bind Muhammad lay doon. Mhm. waaye waaye mbir la nag Muhammad googu ñu bind sa tànk bi jël benn saafara jox la nga naan ko wallahi fu la jaan seen da ngay dégg ni muy yuuxoo. wala seen maanaam exemple bu nekkee fële nga toll fii dangay dégg mu yuuxu. nga xam ne fii jaan moo fa nekk. tey loolu xam nga la ko daan toj. soo toogee ci tuq mooy tuq bu ñu ko waxee mooy yi nga xam ne moom la ñu dëbbee. yooyu xam-xam la yoo xam ne mag ñi yoroon nañ ko maanaam lépp loo xam ne Sall wax na ko ci wàllu jaan maanaam am na lu des laam-laame maanaam lu wér la ta lu am la moom ay la ba léegi mag ñi ñi ngi def loo xam ne mhm. kaaraange la te kaaraange jooju mag ñi doon def manam mhm. ba nikki jaan du ko mën a lor mhm. loolu tey moo nekk ci xale bi tey mu nekk loo xam ne tey képp koo xam ne rek bëgg na aaru ci mbiru jaan mhm. moo xam jaan bu mu mën a doon nag mhm. war nga fexe ba xam ñu mel nii parce que koo xam ne da ngay dox koo xam ne tey danga ngaa yor njaboot ko xam ne tey maanaam mën nga tëdd ba digg guddi mu fenn sa biir néeg xam wala sa kër mhm. wax dëgg yàlla baax na nga xamante ñu nii ñu wax la ci yan condition nga war a dundee boo gisee jaan gi nan la nga war a comporté woo waaye bu la laalee nan nga war a def ba nga xamee ne la tànk ki nga yaakaar di ñëw nga a am jafe-jafe kon yow tey loolu noonu boo ko yoroon nga jox ko daal serpent kon jaan bii ni même bu ko même bu ko sax jaan bi day daw du laal. Sall moo ñu gën a xam ne moom bu ko neexoon. Mhm. fu ko jaan bu toll fii fu jaan nee fa la mu xam ne fa fa. loolu moom la xam rek. Uh-huh. moo xam lu mu mën a doon tey uh-huh. moom bu ko neexee moom xañ na ci biir jaan bi mën na yor jaan liggéey ci loo xam ne fu jaan fu fu jaan maanaam fu jaan nee ci biir fii léegi mu xeeñ ko mu xam ne fii jaan ak fa yooyu xam-xam la. Sall loolu nag am na lu ko yàlla may. am naa si lu leer man man li ma bëgg giri mooy <laughs> ah. maanaam nañuy nangulante uh-huh. maanaam ki ko yàlla may nañ ko nangul. dëgg la kii dafa am xam-xam bu wér man day wax ne. képp ku may jëflanteeg wala may yëngoonteeg yow damay xam ne lu wér mi ci yow tey émission bi xam nga ne ñun ñaar ku ñun ñaar xajuñ ci émission waaye nag li wér mooy <laughs> liñ bëgg mooy askan yu jëriñu liñ bëgg mooy jaam yàlla yi liñ bëgg mooy waxtaane xam-xam liñ bëgg mooy waxtaan woo xam ne adduna bi yëpp danañ ci gis seen bopp maanaam fu nit mën a nekk ci adduna bi am loo aaree sa bopp waaye am loo gàddaanee ba nga xam ne boo amee jafe-jafe balaa sëñ Moot jërëjëf euh, ki nga xamante moom mooy Zal Zal moom ku ko ku a xam rek neel mer tàkko ci Pikine boo ne mer tàkko moom ñëpp ko xam mer tàkko moom amul kenn ko xamul waaw moom mooy doomu mer tàkko bi donc Zal mhm. am na ñu daan wax dañ koy tëj parce que minutes lañ ko def rek bon mhm. mais bu débordé sax garaawul parce que li gis fii nii man mooy loolu yéem na ma mhm. donc Zal dafa am ñuy wax ni jaan dafa am yoo xamante ne day rax duñ nekk ay jaanu neen kese bu la boo ko weddee nawet rek nawet jaan yëpp ngay ngay gis façon jaan bu nekk. mais mais mais du neneen du nekk jaan. non day rax non non day rax. parce que man yenn saa yi boo gisee fi may sama nekk jaan boo fa duggee ay yére laa fa def yére bu nekk ak fi muy dem. yére bu nekk ak fi muy dem parce que tey mën nañ laa soxla mën nañ laa soxla sax booleel ak jaan. xoolal fële waaw mën nañ laa soxla sax booleel ak jaan parce que man noonu laay def man. <laughs> ah mën nañ laa soxore. soxor soxor mën nañ laa soxla waaw booleel ak jaan man def nañ ma ko ba taay. booleel ak jaan. wallaahi hazib def nañ ma ko ba taay parce que loolu mooy jaan bu rax. jaan bu rax yen saa yi di nga gis nii jaan man woon nan ma ay fu bari pour ma fay dem pour jàpp jaan da gis nii jaan bi nii mu leer na jaan baa ngi nii ngay dem doo gis dara. mu ni merci doo gis dara mais loolu nag bu fekkee nitu kese la doo attan loolu moo tax euh, souvent dama koy wax ñi nga xam ni ñoo may woo di ma wax nan na ni jàppee jaan affaire nii dañ ciy bëgg a dugg man leen du noonu du noonu parce que ñu bari noonu nan may woo naan ma dañu bëgg nekk si jaan parce que dañ lay gis ni ngay composé ak jaan yi dangay mel ni da wax ak jaan yi dugg na fi man leen du loolu parce que ñoom danoo yaakaar ni man ni may composé jaan yi rek. damaa non dafa yomb dafa yomb yaakaar dafa yomb fekk yàlla xam na ni room yombul dëgg la dañ siy jànkonteel lu ne wallaahi azim. dëgg la mais nag euh, li naan euh, tey loo tarbiwul doo ko xam. dëgg la nit da ngay tarbiwu. gii nga sama yaay meetaa ko. dëgg la kooku kooku wax xam na ko. Mhm. mais dama jaaral tan ma génn dem tarbi ko ñëwaat. <laughs> day tax nga gën a dem parce que xam-xam du ndaw. dëgg xam-xam du ndaw. jërëjëf Sall lii dañ koy continuer parce que nekkul si benn émission bi la lépp lépp xaju si benn am émission bi kese. wax dëgg yàlla joxal sëñ Modou Ladiane sëñ Modou daal jaan yooyu nga xam ne day rax yow lan nga ci mën. waaw dafa jaan yoo xam ne maanaam tey am na koo xam ne Gris bu bëggee xeex ak yow na yebal jaan ci yow. su la màttee da ngay faatu man sama maam ji jur sama yaay nga xam ne mu ngi tudd maam Modou Mbeng exemple bu la jaan mosaana laal soo yegsee bu yëkkatee mbaxanaam ma teg ko ci sa kaw bopp bi bu wàccut da ngay faatu. du du lugg sax day jël jaan bi rek teg ko sa kaw bopp kii bi rek mbaxana mi teg ko sa bopp mu wàcc mais bu fekkee def na ko wàccut xamal ne moom du jaanu kese kon ni ko Zal waxee lu wér la tey am na koo xam ne bi xeex ak yow mën na ko jaarale ci jaan bu la màttee am na koo xam ne ñi ñuy tooñ maanaam am na yoo xam ne bëgguma ci xóotu mais incha allah ci émission yi ñëw dañ ci dugg waaye am na yoo xam ne daal bu la laalee rek mooy loolu loolu mooy mooy jaan yi ñuy wax ne du jaanu kese wala jaan yi ñuy wax ne dafa rax wala jaan yi ñuy wax ne maanaam dafa mbiru seytaan la yooyu yëpp ay mbir la xam nga day wax ne tey am na tey jinne joo xam ne bu doon dal sa kaw mën na soppali ko jaan am na seytaan boo xam ne tey bu doon dal sa kaw mën na soppali ko jaan mën na soppali ko ñàngoor mën na soppali ko yeew mën na soppali ko coox yooyu yëpp dafa am te lu wér la te mag ñi dañu ko daan jàngal kon baax na ñuy ñu xam ko baax na ñu wut ay kaaraange baax na ñu xam ñu mel ni kii loolu dafa am solo bu ko defee émission bi comme niñ ko waxee rek dama bëgg fàttali jaam yàlla ñu bàyyi ñu xel abonné te xam ne incha allahu chaque semaine danañ ci def ñaari émission yoo xam ne mhm. pour dimbalin teg jaam yàlla incha allahu ñu xam naka la ñuy aaroo xam naka la ñuy def ba am kaaraange mhm. xam naka la ñuy def ba am ubbeeku waaye xam naka la ñuy def ba yëkkati ko incha allah bu nekk ngay tëjee waaw ñu ngi sant yàlla bu baax mhm. di sant mboolem wàllu yàlla yi di sant mboolem ñi nga xam ne ñooy bàyyi xel émission bu mag bii nga xam ne mhm. saal serpent moo koy xam ne bëgg na cee am ay leeral mhm. wala bëgg naa xam dëgg-dëgg numéro saal woo ko mhm. wala numéro Serigne Modou la Diam a jariñu bu neexee joxal ma saal jaan yi tey lan ngay tàggatoo waaw xanaa di gërëmaan ñëpp rek ah di jox euh, di gërëmaan ñëpp di jégaluwaat ah, di leen baal ak di leen baal ak tamit di gërëm sëñ Modou la Diam di wax ni que wax dëgg yàlla kontaan nañ ci moom bu baax a baax a baax a baax ah kontaan nañ parce que bu ko neexoon lii di ko ci fekk ah li ngeen gis lépp moom la waaw ah, di la gërëm yow tamit di gërëm cameraman bu baax a baax di gërëm beral nuyoo nag benn sama mag muy njaga ah. ko a a parce que lépp li ngeen gis lépp moom la moom moo nekk ci ginnaaw wax dëgg yàlla moom moo nekk ci ginnaaw lii lépp di gërëmaat tamit gërëm bu baax gërëm bu amul ab sama yaay wax dëgg yàlla di ko gërëm bu baax a baax ñu koy ñaanal yàlla mu gudd fan lii lépp moom di gërëm sama mag yi sa doom bu ndaw bi. <laughs> waaw di ko gërëm baax a baax a ah, ah, ah. gërëm tamit sama mm. papa ñëpp daal waaw ku lim jum. di wax ni rek ñeen mm-hmm. kal ko incha allah si Diassigui TV lépp dina leer incha allah rabbi. jërëjëf euh, mbokku téléspectateur Diassigui TV yaakaar naa ne lii ñu leen indil nekk na li nga xamante ne lu leen amoon njëriñ te tamit nekk na li nga xamante ne nii euh, luy baax si yéen la parce que ki nga xamante ne moom mooy Serigne Modou Ladiane moom mooy borom Diassigui ak ki nga xamante ne moom mooy Zal. borom serpent borom serpent yi. mu ngi noonu borom jaasi gi ak borom serpent bi fii si Jaasi gi TV. kal leen ko chaque semaine jërë